Galset.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook, Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. www.sénégal7.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. wwwsénégal en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. te waaye Siteu Papa Sow dimanche na ak Pa Abdou Fall muy combat boo xamante deux ans gi nii ñu mbër yaa ngi yor avance mbër gi dem ñu def benn duplex. bu neex Papa Sow ne ci këram. Siteu bi Pa Abdou Fall ne ci 2S Siteu Papa Sow wuli. Siteu Papa. Mm-hmm. est-ce que am ñaari combat. combat nag ñoom bay na. mais mm-hmm. combat yu mag yi Siteu Papa Sow tamit am benn benn leen ci xam nga la combat jànq la. Mm-hmm. Siteu Papa Sow mosuñoo bëre te Siteu Papa Sow da ko xasoon na ko entraîné woo te man man soo mbéy mais béy béyu ma neex la xam nga ma tax dafa am jom jom ko àgg parce que suñu mbéy man maa maa ko mag foofu ay bi ñu ngi bëri ay ma ko may li mu am ak mbooloo mi bu ko topp moo tax. boo ko taxawal passé xasee ba léegi ñoo gis beneen. ci format bi ci nëbbutu bi ci lépp Papa Sow dafa dugg ci ay ay ñu daan daan daan boog Siteu daan ko. moo tax sos écrin bu bees. sos écrin bu bees booy yooyu yëpp di daan du bëgg a daanu moom itam xanaa moo tax combat bu mutuelle te si si daan ko moom déem ko gënal parce que xam naa ko dafa am jom. waaw te am tuba bu am fit la. am na sax le 4 décembre. Jax production mooy ñëw ndax maa ko ne woon bul topp tournoi yu bàyyi bëri door bi mu ne ma dinaa fekk si Père moo tax Italie ñi ngi dëggoon benn gala diggante kaaw Albalka Kayre fils de Daouda Fall ak Kaaw Gourdin ñaar ñoo ko ci am ñaari ndam. Euh, ba war a dëgmal beneen saison bi Jax jaar fa tëgg ko kon dañ moom mooy tëgg final bi. diggante Kaaw Gourdin ak euh, euh, euh, fils de Daouda Fall kon loolu mënta ñàkk mais wuli xam naa bala ñoo jeexal ndax li ci des a bëriwul su ma juumee yaa ngi ki avance ay combat yooyu waajal. Mhm. ak it nag sa diggante Kara. waaw ah. gis nañu su ma juumul taamar ji ngay war bi may war dañ ne soxnaam moo la ko jox. waaw ah. xam naa foofu la ñuy jeexalee rek ak suñu kanam. waaw di ko sant di gërëm Kara bu baax a baax nit ku baax la. Mm. sagal na ma parce que vraiment parce que oto dafa baax ci nit. xam nga dafa ma woo na ma wuli dama ci parking nga xool oto boo bëgg man sax maa tuuti bët jarab bi mais dafa ma xool ne xoolal oto boo bëgg nga xam ñaata la parce que comme da may tiitaroo fépp dama bu ñu sant ngërub ci car amoo oto ma ma dem gis fa su ko juumul daaw maa koy wax Ibrahima léegi promoteur bi la tëggoon mm-hmm. moo la yóbbu ci parking am ne la ne luye la oto. waaw nga nga màggale ci. waaw ma màggal nga màggaleeg sa oto. damaa amoon daa meloon yoo xam ne damaa damaa amoon oto damaa luyoon oto. waaw ci ci sama réew lañ ko daan xam nga. Ibou bilaa damaa luye xam nga oto baax na kon. daa ma dem magal la sax la. sama réew laa la ñu daan ko. Mhm. kon bu ma na ma demal tan oto boo bëgg. Mhm. man may kii ma tànn bii. comme ça mun na am problème yow si sama waay nga bëgg naa ku dem ci oto nga dem bëggee ci moom kenn yóbbaale la comme da ngay taxaw foofu nag kalandoo tax nit da ngay bëgg nit nit ki lay suturloo wax fépp da nga koy respecté kalandoo mun na ko fay fay jaay di gërëm. laaj Diop bu baax dama dégg mooy futur maire. Euh, euh, euh, maa ngi bëgg a jeexal tudd mm, mm. laa woon. Uh-huh. ca Réfane mais uh-huh. léegi ñu far ko suñu liste actuellement nag wax dëgg si yàlla maire bi laay jib ca parce que xam naa doole bi am Réfane te bëgg naa dañu mu ñëw ne ma damaa bëgg nga nag man liggéey. actuellement nii Djiby Thiaw laay jàppale pour mu nekkaat maanaam ñu ànd liggéey Refane di di di ngeen baal ma nga bu may laat Diop directeur LONASE le futur maire de golf le maire sax de golf parce que sama nit la aussi Maxime boo gisee nag booyam laat Diop comment bu ma am un million la may jox te dëkku Refane nekk sama nit li may jàppale noonu la jàppale waa golf yëpp te it maxi ku am bés jàppale la man itam bés bii ma bés muy meer damay ñaan ci yàlla yal na ko yàlla jox mu nekk numéro golf di wax waat golf yëpp képp ku fay sama fan si club góor ak jigéen nga benoo bokk yaakaar ma laaj joom parce que nag muy sama nit mbuur aussi mbuur Cheikh Issa Sall sama xarit la sama candidature bi may na ma ci xaalis mais bu dee ma may wax waa mbuur yëpp ñoom ñu ne wootee Cheikh Issa Sall mu nekk meeru Mbour mu ngi bu daar Cheikh Issa Sall laa fay jàppale mu Cheikh Issa Sall golf Lat Diop Mbour Cheikh Issa Sall laa fay jàppale pour mu nekk maire golf Lat Diop laa fay jàppale pour mu nekk maire Kër Massar Sud fa laa dëkk Gannat Kébé xam nga ko Gannat Kébé laay jàppale. parce que man Kër Massar la ne moom tamit. man Kër Massar Sud laa bokk Gannat Kébé laay jàppale ànd ak moom campagne Keur Massar Sud bi yëpp pour moom itam mu nekk maire Keur Massar Sud parce que sama nit la xam nga nit bu dee sa nit boo am combat mu mu lay jàppale yooyu moom moom itam li combat la ah, ah. li combat la moo tax ñoom laay jàppale golfu nanu wootee laat Jóob mu nekk maire waa Mbour nanu wootee sa sa sal mu nekk maire maire Mbour waa Keur Massar Sud nanu wooteel gannak te def mu nekk meeru Kër Sud yeneen meer yi nag waa Réfane nanu wooteel man ak Doudou Thiaw mu nekk meer meeru Bande ak Ndangal ma sama émission. yi ci des que le meilleur gagne. que le meilleur gagne sama ku bëgg laa. Euh, programme bi rek face to face yëpp ak bu ko defee ñu jaaree fii xam naa ni des émission bi. mat si nga baal ma maanaam ah koy tuddati. sama combat liiru jaam. waaw les combats yi xam naa la ko léegi. Omar Sow. mais Omar Sow moom dañ koy dégg. te promoteur boo gisul. Mhm. ci ci émission rek la dugg naa ko taxawal. ñu ngi koy xaar ko dégg leen ko ah man de bu leen mu dem CNG jënd licence. Ibrahima mii bëggoon na ma tëj mais dama ko leen. am na ku wax ak man amee huit dossiers dafa bëri. waaw nga ki jaaree ci émission rek. ñu ngi koy xaar de demul CNG jënd licence danaa leen tëgg naa leen fay nangam. maa ngi koy xaaraa man Omar Sow man de Ibrahima léegi nee ma bëgg doon ma ma wala ah ma xaaral kon kon Omar Sow bu dee. daal di dugal ci émission bi nag dañuy combat ñu ngi koy xaar maak liy jaar ak ki ak kii nag ku baax la i daala muy téere bu baax lay jaay amul caaxaan Galset.com le roi de l'information en temps réel suivez-nous sur YouTube Facebook et Instagram téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. www.sénégal7.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. www.senegal7.com Le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube,